li si am solo mooy que ren nous avons alphabétisation également comme nous avons fait des mathématiques, mathématique ci français ci sciences physique ci matières nous avons aussi ñoo xam nous ñoom facilitateurs nous avons fait des foofu ci biir gox goxaan di alphabétisation war nañu am ay super yu le numérique commencé on nañ ko ci radio communautaire yi commencé nañ ko une classe alphabétisation Nous encore ñu ñëw remettre les ay euh, ay kit yoo xam clé euh, support support numérique pour que nous les euh, accompagnions. mais aussi nous avons aussi loo xam ne remettre nañ ko décret président de la république signé pour que les langues le braille parce que c'est alphabétisation seulement également non voyants Nous aussi ci nous avons décret Nous, remettre donc nous avons que l'alphabétisation, solo la classe nous avons classes yu le classes Sénégal mais pour que classes aussi partout en tout cas au Sénégal et puis nous avons braille nous olof

et yéen mi sax ay journalistes yo xamné légui xam ngeen numérique mo leen di accompagner wunuñu donc jël le numérique di accompagner ay mathématiques ay français ñi di def alphabétisation également du am lool lool moo tax que ñu réfléchir si moy direction de l'alphabétisation de langue nationale ak ministère bi yépp ñu ba wut ay vidéo ay image ay son ñu jéem leen accompagner pour que facilitateurs yi suñu dem du jàngale alphabétisation ci langue bo xamné bo langue langue boo ta jël ñom aussi ñu am support numérique pour que mu leen accompagner